moom la alquran di wax ne sa yaqulu laka almuxallafuuna min al arabi chaxalatna amwaaluna wa ahluna fastaxfir lana yaquluuna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum min allahi cheyan in araada bikum darran wa araada bikum nafaa bal kaana allahu bima taamaluuna xabira bal fanantumu allan yanqaliba arrasulu walmuminuuna ila ahlihimu abada mooy da a jot rek ne yonente bi ak i saxaabaam du ñu del siwaat loolu képp moo leen tax a waaye la lay sax wérut noonu la yonente di génne ànd ñi nangoo dem ñi ànd moom ci jullit yi mu génn bésu altine ci njëlbeenug digg diggiw tabaski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 xabasaha xaadisul fili la tëye woon ñaayoo ba duggut maaka mu tëyee gileem gi daal di dàq gileem mu jëm ci geneen wet mu nangoo dem normal mu xam ne kon lii attab yàlla la mu dogal ci ñoom mu ni nag Xuraysin tey du ma ci benn baat buy jokk ak mbokk te wu ma leen ci lu ñu ma woo luy tekki jokk bokk rek naa leen ci wuy noonu la walbate naaga gi mu daq jëm wetu Xudaybiya foofu nit ñi aw mar wu tar fekk leen fi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 yonente bi ne aliin faral rasulullahi ji waaye loolu dis ci aliin lool bi laaj ku mbind mi faral ko boppam ni ko bindal hada ma saalaha alayhi muhammad ibnu abdillah suhayl ibnu amr ni ko bindal bindal lii mooy li muhammad ibnu abdillah ak suhayl ci loolu yàlla wàccee ci ak wax yu eh, di dal ci kaw yéefar yi ci soppaxndiku googu di tagg it yonente bi ak jullit yi ci seen rafetu jikko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 bi loolu jàllee bañ nekk ci biir sulx bi am na ku ñuy wax Abu Basir Utba ibnu Usayd moo jëkk daw ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa dawee ñëw ngir jébbalu si waa Qurayshin yónnee ñaari ñaari ñu di ko topp si ñu ko topp see ni ko li ñu siñante woon mooy ku daw ñëw ci yow da nga ko bi daal di koy digal ni ko dangay ngay dem ak ñaar ñii di la jël si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 mu toog am yeneen jullit yoo xamante ni dañoo jébbalu woon ñu delloo leen mënuñoo dellu màkk mënuñoo dikk dikk madina ñu dem ñoom itam toog foofu fa kooka bañ doon fa mbooloo bañ fa doonee mbooloo nag aboo jandal moom yi nga xam ne dafa ñëwoon bàyyam delloo ko moom itam daal dem fekk leen bañ fa doonee mbooloo daal di wax ne ginnaaw waa Xuraysin ñoonu tere nekk ci suñu bokk julli te ñoom buñ fa nekkee dañuy gën a xotal kon commerce mu fi jaar jóge ci ñoom léegi ci dund dana ko jël ci ñoom ñu toog fa commerce jaar ñu nangu ko léegi rey mbaa ñu xeex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 jébbalul boo ko defee danga nga mucc ta yàlla dana la fay sab yool ñaari yoon ngir li nga waroon am ci nguur gi do ko ñàkk te dana la fay ni ko fa in tawallayta fa innama alayka ismul arisiyina ni ko bu fekkee nangu woo li ma lay wax nag bàkkaarub mbooleem surga si la topp yaa ko gàdduwaat daa ciy teg aaya bi wax ni yaa ahlal kitaabi تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا mooy yàlla dafa wax yonent bi ne ko neen yéen ahlul kitaab kaay leen wuy ma ci benn baat boo xam ne maa ngi yéen a ci yem muy ñu bañ a jaamu kenn ku dul yàlla te bañ ko booleeg dara bataaxel boobu la bind buur wax nañu ni bi bataaxel bi àggee dafa wax ni ndax nañu.